si vous êtes bien je suis bon donc avant sëñ bi ngeen tàccu leen bu baax a baax a baax a baax a baax ay jël soxna si ñibal sa gémmiñ sëñ bi day bañ a ree kay jërëjëf jërëjëf waaw kay waaw kay ah saay mënoo nga de ah na salaamaaleykum salaamaaleykum baal ma téen

góor gi expliqué nu laay laay li la dogal góor kenn xamul góor gi expliqué nu góor gi nee na góor gi expliqué nu waaw ma expliqué leen ay waay ndaw Samba ma ne ko déggal loolu góor gi ci ñàkk fayda góor gi ci bonam mais yéen ñi nga xam ni yéen a yëkkati seen tànk ndeyjoor teg yëkkati càmmooñ teg jël seen taat teg ci sees ngeen ibbi seen nopp déglu mu expliqué leen mm. góor gi loo teg ah mm. néew kenn te bu kenn fay déggal loolu ak am fulla kii ak fulla nee nuyuwul kenn. leen gën a bàkk perek ma ñàkk sama ndey da koy defanteeg yéen ba mu sax fay leen ko góor gi loo teg. Eh, nit loo xamante ni fi ci ay kàddu. waaw man mii maa ko wax. jëm chance de la responsabilité. Mm. nee kàddu yi ngeen dégg mu jëpp rek moo ko wax te moo tey ba tayaatoo te sax xanaa war ngeen a war ngeen jàng. boo tayee euh, yooyu yëpp di ci am waaw góor gi loo teg mais eh, képp nga am na lenn loo ci yëgati waaw laa jumbala ko nga képp ko jom boole na ñaari fo yu ngeen miin ne kàddu yi ci jib rek moo ko wax te keneen ku ci wax leneen laaju la ko laajaatu la ko tereet mbaam yóbbaale ko caata maam yamu ca mu ne ngeen kepp li ngeen moom te xanaa war ngeen foowe catégorie keppal Nemza keppal nous désirons keppal au nom de vie keppal yéen ñi it kepp leen sëñ bi keppatiku mu keppatiku nga keppatiku loo teg waa waa déggal loolu déggal loolu waa waa waaw waaw ak am fula dégg ngeen de cay kàddoom ne gi doo ko leeral tuuti waaw toogaay moom waaw non la lay demee noonu jàng yi jàng yi non ma ci waxoon rek laa ci waxoon tarkal la déggal loolu ne jarul mu koy jarul mu koy wax wax ji di bëri waat nii jàng yi na mu amee woon daaw nee ren jii noonu lay amee te jàngi daaw ay saaga ndaya ko yàqoon ku ne saaga jëm fu ne ren jàngam yi responsabilité ku ci saaga ku ne dinaa góor ñi loo teg. fi dégg ñoom am nañ mochi blanc. Ah. am mochi noir. ñoo lay toppandoo. man ma yor mochi ak jaune. Ah. ak rouge. Ah. ak tuuti vert. waay loolu. xanaa yaa drapeau Sénégal. yaa drapeau Sénégal ñi lay toppandoo naan am nanu masi blanc ak masi noir ak masi rouge ak masi métan yow yaa yor drapeau Sénégal yaa yor masi arc en ciel yow yaa yor masi drapeau Afrique du Sud yaa yor masi Gambie yaa yor masi bu mat sëkk mas góor gi loo teg hmm. Hmm. waaw waaw waaw fi ma jaar waaw fi ma jaar fi nga jaar noo tax mu ni moo naa ci bii bo naa ci bii bo yoo lele gutu gutu yàqul deru béy. sëñ bi naan naan nga yoo lele. kon mën naa ci bii boor. naa ci bee am na solo. Hmm. am na solo am na solo. tabaarikàlla. am na kàddu yi nag. Hmm. defe hmm. leer na sëñ bi wax na fa mu mëne. muy ci leer ak ci lëndëm moo ci mëne. muy ci guddi ak ci bëccëg moo ci mëne. muy ci kaw ak ci. sëñ bi loo teg. juumo. ah juumo. waaw juumo. waaw. waaw. waaw. ah. gàmmu gi moom. waaw. cere ji moom. cere ji. noonu rek lay demee. tubaarkàlla. ku joxe cent mille. waaw. ñu tibbal la boolu cere. boolu cere. defal la ci ñeex. ñeex tegal la ci ndaw. ndawal ak kaasu meew. ak meew. tubaarkàlla. déggal loolu góor gi ne yow mi yàlla cërale. nga jël ñaar fukki junni ni ko góor gi damaa ñëw sa jànge waaye damaa bëgg sa cere yi booy ñëw indi bool nee boo ko joxee dina la defal cere ñu ne déen waaye mu defal la ca ñeex ñu ne déen waaye mu defal la ca ndawal ñu ne waaye mu defal la ca meew sëñ bi loo teg ku joxe fukki junni fukki junni cinquante mille cinquante mille jox la cere cere ñeex ñeex ndawal meew doo ko am doo ko am la déggal loolu réew mi suñu borom teral nga am ñaar fukki junni mott jàpp la nga xaaj ko indi fukki junni bi ñëwal indi bool nee boo egsee dinañ la ñeex ñu ne dina wañ defal la ca ndool la ca defal meew loo teg ni nii ah tey ñeex ñeex doom dawul doom naa ni leer na loolu moom defe indee cere ñeex nga doom ndool doom meew loo daa ne indi dix loolu yabaate la. dix ñaari junni. ñu jox la cere kese kese rek bon. Ah. kon nag leer na. jarul may wax ni cere càq la. te jarul ngay indi bool na ngay indi mbuus. waa kay ñu loo teg. Ah. Ah. waaw. ma dugg ci leen. dugg ci. tuuti ci sama baat bu ñu. Eh, waay ndaw Samba. déggal loolu. Hmm. ñàkk faydaam. ñàkk fullaam. xajeem tax na nee ngeen ubbi seen nopp yi déglu mu baaxee leen tuuti ci baatam bu neex bi góor gi loo teg lu xeeñ a xeeñ lu xeeñ a xeeñ eh sëñ eh eh bi yaa xeeñ a xeeñ yaa ko fi indi mu waay fatal bakkan loolu neex da ngeen ciy ànd da ànd lu xëy na xëy. lu xëy na xëy. lu xëy na xëy. góor gi ko fi indi. fattal bakkan. aka yor xet ne kii xetama bon kii xet bu la rombee ni foos xet. dama bon loo xamante ni. waaw. dañoo ñëw te day góor. waaw nañ dem ca ginnaaw. waaw ginnaaw mënoon ah waaw waaw loolu moom loolu moom da nga cee yéex a jóg góor gi. toogaay yi ci baas bi désordonné na. nee yow mi nga xamante ni yaa déplacé wu sa kër dara yëkkatiwu la lu du fekkee jàngam yi nga ñëw doon góor mënoon nga sax ba a ñëw waaye gannaaw ñëw nga ba pare na nga dem ca gannaaw ne leen nga toog fa soxlawu la loolu moom da koo yéex a wax. nee nii. waaw. ay jigéen lañ. jigéen. sor grand bu mel ni meer. mel ni meer. musóoru muuru. nañ toog ci si si ca ginnaaw. jaxaat ca wetu góor ña. nee na yow mi yàlla la nga doon jigéen. doon jong ma taaru lool. amoo looy def lu dul di sol grand bu di mel ni meer ñooy dénn waaye nga tagal ko ba ca kaw. nee boo yegsee jarum nga koy jege na nga taxaw ca wetu góor ña ca fële ca xaj loo teg. mooy soo lay tabaas. tabaas. taay baas taay baas taay baas baax na. pàccal ko mooy. ba ca kaw. dañ toog ci digg bi nii. cam. ma ne ko cagaa ngi bëgg a ne yow mi jóge sa kër doon jongama. nee nga jël sa taille basse moo xam muy taille basse simple moo xam muy taille basse timtaat moo xam muy zép bu nu fant nee boo ñëwee bu ko sori toogal nii jàkkaarloog moom nga koy xool mu koy xool ndax da nga koy dundal. a ak xaje kii a ah. asul o. o. o te ki jiin. jiin. wala ba. ba. ba tey baax na. nee bu la neexee. nga doon jonga ma sol o. ñu ne déen waay nga teg ci jiin moo xam muy jiin bu dang nga def ci kilo wang moo xam muy baa nee bu sori teewgal nii ci troisième rangée bi jàkkaarloog moom loo te nii nag sol jumbax awut ma awut teg ci mini góor gi jumbax awut xewi na de korop kop moom korop kop siis mooy na waaw mooy fii waaw mooy fii waaw suufu kii bi ci mini. mini mini. nañ toog waaw waaw xeeñ na kay li ma lan la. woo ayu ay ay ay. Ah, ah. déet déet oh oh. ngeen baal nu de ñoo leen yow wax de moom day bañ mini nga wax mini. te moom eh eh. hey hey hey ah ah gannaaw day bañ mi ni gannaaw day bañ mi ni ndaxi pooj nga wan ko pooj ñu ne dee na waaye nga diyu ko ba mu niin ma wax muy xees eh da def ndànk rek ma wax ak ñi léegi yow loo bëgg loo bëgg addiya jàpp ci waay at ñaata addiya ah, ah! ay ay waay jàpp leen ci 20 mille waay dimbali leen la jàpp leen ci 20 mille waay yow li nga laaj seer na de waaw waay dimbali leen leen ñu waay fexe leen na calme rek ayca waay ayca waay gars yi waay na ku jàpp waay gars yi fexe nañu fee waay Momadou waay. waay dimbali leen di waay waay dimbali leen di waay. joxaane ñëw na ah, kaay kaay kaay kaay Balla kaay joxaane ñëw na. Ah, ah, dimbali leen ñu rek waa dimbali leen joxaane ñëw na soxla wecc eh eh vingt mille la la eh Balla eh. daa manqué. daa manqué nii. daa manqué waay daa manqué daa manqué jàppale Momadou waay. 15 lan yor waay dimbali leen di waay. eh dimbali leen di waay. 15 lan yor waay. waay dimbali leen di waay. nakal ma rek. Balla moom na calme rek. moom na calme rek ay ñun ci sees ñun ci sees. indi indi ñu ci xaaral xaaral rek xaaral rek Balla. eh eh Balla eh eh eh eh eh, eh. eh, eh jeex na eh kii kii wàcc na. eh kii na calme eh na calme. eh nañu yeggali ayca ayca ayca. ayca ñu yeggali ayca ayca. laaj déedéet déedéet déedéet. eh yow eh, eh waxala kii kii caga na fon lay la fon fon. eh eh, eh, eh leen ma dox nan ko xaalis waaye kenn yoru fi tuñu disponible mu fonal ma léegi laajatul bus laajatul tuñ ay ay ay jour lay laaj jour leex leex amul kon waxati ko waxal ci kii taxawal taxawal fii rek ci leex rek dimbali ñu Juliana waaye dimbali ñu rek ñu yeggali waaye dimbali ñu rek ay eh, jox ko leex bi rek ñu yeggali waaye jox ko loxo rek ñu yeggali Juliana dimbali ñu rek dimbali ñu rek waaw waaw waaw waaw pour ñu yeggali quoi pour ñu yeggali lii dafa yomb lool bu dee lii ñëpp daan tan be lii dafa yomb bu dee lii ñëpp daan bu dee lii la rek ñëpp daan waay waay sama day tan bi dab dab dab dab